vite cocktail.

dina yok sen katan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak nak lépp emballage civilisé tour ak jus vito da am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 ak jàmm ci seen site internet sénégal 5 point com ak ci seen télévision 5 tv sénégal kii di El Hadj Diouf l'international sénégalais daf na woon du mos a takk ñaareel ndax kii di jabaram mën na ko aawa mën na ko ñaareel mën na ko ñetteel mën na ko sax ñeenteel ah El Diouf xanaa ba ngay wax loolu gisoo sénégalais yi ni ñu te baax te ku ci ñulul da ngaa xees te ñépp rafet déggal ah bal ba dugg na Diouf mi waxoon du takk ñaareel takk na xale bu baax est-ce que sénégalais la sax waaw waaw sénégalais pur sax ko xum xumuta dagan bongo mani kep ku yor sabar rek yaangi won ta ca xew ba da yow xana giso batterie yi te nan ko ñaaral yee ko validé sa yaay sa yaay liggey li affaire bi nday jala ki di yaam nak dafa bég lol ba joy fa joy doy war ndax neena na Diouf daf leen a jàppale guddeeg bëccëg suba itam fu nek cum El Diouf tak na ñaaren xale bi ñepp doon wër ki di pap Abdou Cissé mom itam tak na jabar may na ko ñaari 4-4 plus 2 paris en or cum ou jëkkëru joueur wala jabaru joueur jot na nak mbokk jere ngeen jëf ci and bi ngeen di ak ñun ci suñu site internet senegal 5com ak ci télévision 5 TV Sénégal. Vito Cocktail une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp ñu ko Sénégal si anam yu sell naturel jus pour seen goûter dormi collation au bureau ba manam maanaam bépp jus orange ngir may leen cawarte ak tonus jus corossol amna, na baax lool si yaram ak ay mieux am solo gingembre bi Mom, dafa baax lool si góor ak ay vertus baax lool itam si organisme buy bi de day toy bar baax si yaram tayit yi leen jus bissap bi oh, oh dina yok sen kattan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak Vito soo exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06